askanu Touba Mbacke amati tiis ak naqar wu rëy rëy ci lu matul juróom-ñetti fan ñu faataat benn soxna buy wuyoo ci turu Ndey Diop ginnaaw bi ñu faatee benn xale bu góor fële ca gaar bu mag Ndey Diop nag di xale bu jigéen boobu nee nañu ab élève la woon bu doon jàngi ci benn école bu nekk Mbacke Bawol Ndey Diop wax nañu ne am na ci ay at lu tolloog fukk ak juroom ñett dëkk ca fi nga xam ne moo di Touba sura lu soriwul dara juma yi Touba ñëwoon nag seet si koo xam ne wax nañu ne ab coroom la woon di koo xam ni bokk na ci njaboot ku mag a mag a mag di kilifa diine ci dëkk bu sell bi di Touba fi mbir mi xewee nag muy ci centre commercial Cheikh an mbake nekk fii ci Touba Palen maanaam xayra lu soriwul marché bi dara ci ginnaaw rek eh, siège bu Touba ci kanam mën nañu wax ni ñoo bokk sax eh, li nga xam ni moo di eh, bâtiment bi waaye daf ci am wet goo xam ne dafa am ay appartement foofu nag la ki nga xam ne moo def ñaawte fii nekkoon dëkkoon ci benn appartement ci li nga xam ne mbir mi am na sapeur pompier police service d'hygiène ak ñi nga xam ne mooy banqaas bu xarañ bu xarala bobu nga xamne mo nek ci police te fete diwanu dakar ñu leen di wax police scientifique ngir saytu li nga xamne ne gañu xalé bu jigen bi ay waxtu yu bari nak ñu def ko ci kaw terrasse bi nga xamni mo nek ci immeuble bobu tolok ñaar japp ñet étage ca kaw terrasse ba wax nañu ne fofu lañu faté xalé bu jigen bi la ca gëna yéme nak nag fat gi modi rek tabbal gu ñu ko tabbal ci mel menn mbàndum ndox maanaam réservoir yi nga xam ne dañ koy aj ci ko bâtiment bi ngir muy mën a alimenter euh, euh, ñi nga xam ne ñoo fa dëkk ci biir mbànd moomu muy mbànd mu ñuul mi ngeen di gis foofu la ñu dugal xale bi ginnaaw bi ñu ko faatee ba pare muy loo xam ne nag jaxe woon na ci ay seere yoo xam ni jot nañu ko am wala boog ay xibaar yu ñu jot a am jafe woon na lool ngir ñu mën ko génne ci béréb bi mu nekkoon ndax euh, jàpp nañu ne dimanche la fa nekkoon altine ba tey di talaata yaram wi xawoon sax di soppeeku ba tax na jafe woon na lool ñu génne ko waaye sapeur pompier ci ay xara ak ci ak xaralaam euh, fexe nañu ba génne ko police scientifique def seen liggéey ci noonu lañu daal di génnee wàcce ko dugal ko ci seen biir oto bi nga xam ni ci lañ ko yóbbu ci fi nga xam ni moo di euh, hôpital Matlaboul Fawzeyni muy mbir moo xam ne nii nag bi loolu amee ñun yéeg nañu ca kaw ginnaaw bi nga xam ne def nañ seen liggéey ba dem ba gis fi nga xam ni fi la waa ji dëkkoon waaye fi nga xam ne fi lañ wax ni it fi lañu ko faate waaye mbànd mi nga xam ne tamit ci lañ ko tàbbaloon muy jëf ju ñaaw joo xam ne nii nag Euh, ñëpp ñoo ngi koy tiisoo te di ko métitloo muy loo xam ne nii jur na tiitaange waaye jur na nag njàqare gu rëy rëy rëy ci dëkk bu sell bi ngeen gis nag témoignage yi nga xam ne seede yi nga xam ni ay nit andi nañu ko ci mbir mi ñii di ay ñoo xam ne ay kilifa lañ ci wàllu kuréelu ndaw yi ci dëkk bi waaye ñeneen yi tamit di ay eh, eh, njit ci kurelu jigen ñi waye ñeneen ñi tamit di ay dëkkandoo ak ñoo xamne tamit ñu ngi liggéey ci walu njabot ci biir dëkk bu sell bi ndey jom nak euh, kon niñ leen ko waxe sapeur pompier jël nañu ko ba yobbu ko euh, kañ lañu koy denc fu ñu koy denc loolu xamaguñu ko waye ki nga xamne mo def ñaawteef fi wax nañu ne mom ci bopam mo dem jébbal bopam ñi nga xamne mo ñoo di tak der yi muy commissariat bu euh, jannatul mahwa wax leen mbir mi Eh, na mu ne mom moko ko faat mo def li ñu tek ko loxo kon eh, waxtu yi ñuy addo ci xibaar yi ñu am mu ngi ci loxoy tak der yi muy police bu jannatul mahwa ngir xaj na ñuy wéer rek li nga xamne modi euh luñu tubi te moo enquête yi nga xamne ni war na ci képp ko xamne ni def na aw eh, rajajin kon mbir yi dal lolu lañu ci amagum mbir muy mbir mu tiis nañu Euh, sax jéema a gisante ak ñi nga xam ne ñoo di ay waajuru ñi nga ki nga xam ne moo def ñaaw te waaye mujj sotti ndax bi ñu demee ci appartement boobu fekk nañu ñu tëju te amul dara loo xam ne nii ma nga doon yëngu ca béréb ba euh, loolu daal bokk na ci xibaar yi nga xam ni jëlee nañu ko ci tuubaa Palen ci talaata ji eh, takku saan jëm timis muy mbir moo xam ne nii nag dañuy ñaan yàlla rek mu daal di fi bañatee amati bañatee amati fenn euh, ñuy gën a dénk suñu bopp tey gën a dénk aussi njaboot gi rek ci farlu waaye tamit ci xale yu jigéen yi ñuy gën di waxtaan ak seen ay waajur ndax nag xale bi ci xibaar yi ñu am nee nañu euh, xale bu jigéen bi dafa war noon lor maanaam dafa ëmboon kon xañ na laleen jotale xamuñu ko waaye ñàkkul kon xañ na ci wàllu ëmb ba bañoon mu siiw mën na nekk ne loolu moo sabab faat gi euh, loolu nag suñu xalaat la du benn xabaat bu ñu jot waaye comme ëmb am na ca te ki ñu wax ne moo def yëf yi bokk ci njabootu kilifa gu rëy xañ na mën na am bëggul woon mbir yi siw euh, te it euh, xelam xañ na booba tamit jàpptoon dara lu dul bu ko faatee xañ na mbir yi du siw ndeke mbir ya fa gën a euh, foofu la gën a bone ndax euh, def la ngay def am na ci faat gi am na ci muy jël bakkan nit waaye tamit tëdd kaso boo xam ne nii xamee sul kañ la cee jógee ñuy gën a dénk kon xale yu jigéen yi rek yu mel noonu su amatee ñuy ci waxtaan rek ak seen ay waajur ndax nag eh, bu njëkkoon mag ñi bu loolu mosaan am war na lool bu mosaan am mag moo daan dem laa xam eh, ëmb bi ka xam ne moo ko def waaye yaakaar naa ne eh, bu ndaw defee la muy def waxul yaayam waxul ay kilifaam lu dul dem di ko wax ak ki nga xam ne moom la ko seexal te muy eh, way def ji kooka mën naa bañ wala waaye mën na koo proposer tamit yàq ëmb eh, loola nag bu ko gàntalee te mu bañ mu siiw tamit faat mën na ca am leneen mën na ca am kon daal li ñuy gën a dénk suñu bopp di leen ko denk rek mooy xale yi ñuy gën di diisoo ak seen ay waajur ku ci lum ci mën a doon mën laa dal rek nga mën ko wax say waajur ñu mën ci taxaw ndax nag diggante doom ak yaay wala diggante yaay ak doom lenn lu ñu cay nëbbu amu ca rawatina loo xam ne nii nag mag ñi dañu ne ëmb barmool ab gëléem la eh, du màgge ci biir waañ kon du lu ñuy mën a nëbbu te yaakaar naa ni eh, diisoo ak ñi nga war a diisool soo ko defee rek da nga am li nga xam ne mooy euh, euh, euh, da nga am li nga bëgg te xañ na yenn yi du ci mën am ñu ngi tuub tey jégalu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ngeen wéy di topp Timis TV te ngeen abonné partage suñu ay vidéo jërë ngeen jëf.